asalaamaaleykum sunu mbokki internet yi ñu ngi leen di seet bu baax di leen nuyu di am kontaan teel mbégte loolu jàkkaarloo ngeen seen chaîne bi nga xamee ni moom mooy Nick TV donc tey ñu ñëw ci benn découverte boo xamee ni mu ngi fii ci Kër Massar Kër bu ko xam-xam ni dëkku champion la boo xamee ni daanaka dañ koy jàngale lu mel ni xeetu obax li ngeen gis léegi ci image yi nga xam ni moom leen ñu leen di wan noonu daanaka mu nekk ay ndaw yoo xam ni seen yëngu teef la ñuy def lépp moom mooy xeetu obax. mu ne ko sport boo xam ne l'islam la ko reconnaître Kër Massar nag loolu dëkk bu yaatu boo xamee ni daanaka bu ñuy wax quatre vingt pour cent yëpp ay ndaw lañu ay jeunes lañu tey tam rawatina tamit tey nag ñu ñëw espoir bu Kër Massar boo xam ne yéen ci wàllu mbas euh, bas comment euh, dire waxtu su anglais yow nga jiite mais a xam avant ñu ñu loolu lépp kan mooy yow sa jëmm fan nga tàmbalee liggéey bi nan nga ci jaar ba tey jëm sax tey ci. waaw maa ngi tudd Mayakor Faye euh, maa ngi commencé boxe dans les années quatre-vingt-dix-huit maa ngi woon mu ngi di Dakar mu ngi di Dakar mu ngi nekkoon club bu nekk euh, Djiba Mar ci suuf. voilà jàngee boxe ma demee ba booru 2001 ci la commencé compétir championnat 2001 mm-hmm. nag. Euh, ba 2018 dama ko complété ci laa bàyyi dugg ci entraîneur jaar INSEPS am initiateur def fa premier degré tamit ci laa génn nag ñëw kër fi ma ne pourquoi pas mu dugg ci saal comme boxe mooy boxe mu bëgg ci laa ubbee saal ubbee saal donc yaakaar naa ni balaa ñu ñu tuuti ci saal dañuy tàmbali yow sa carrière nga tàmbali bi ak tamit lan ci nga xam koy def bon à l'époque nag ma ngi woon avenue Jos Pompidou nekkoon nag benn grand bu nekk bu doon box bu tudd Ibrahima Kéré euh, moom laa doon àndal nii bu waree dem compétition ma koy dégg saa dem yu mel noonu ci laa dem ba fii di man euh, ci la commencé box. waaw ci nga commencé box parce que ku ko xam-xam ni xeetu dër la te Sénégal daanaka nekk dëkk boo xam ne daan yërmande gi moo ëpp. nan nga ko doon dundee ak sa diggante ak sa wéyoo ba nga xam ne da ngay xëy rek daanaka nekk ci ay dóor. bon bu ñu ko daan gis à la télé nag da doon doon leen jaaxal ndax dañ lay laaj sax ndax tóor yi est-ce que day dal wala bu dalee day def effet yu mel noonu wala day gis ñu may laaj nag loo euh, loo mën a bëggee loolu ma lay xoolee comme làmb rek ndax dañ ko am na amul sol daal donc passion la est-ce que noonu laa ciy demee waaw noonu nga ci demee dafa mel ni ba nga koy tamit bu ci xarañoon nga maanaam bu ci xayoon nga ba amoon ci ay xeetu ay daanaka ay ay kubak yu mel ni demee noonu ndax loolu am na ci waaw parce que premier combat demoon nii dama yàlla seen buuf la woon mais après nul bi parce que toog naa six combats yu ma teg ci ba yoo xam ne damay gagné damay gagné ñu ci yoo xam ne sax dama gagné par kàlla waaw ci laa ñu demee aussi dem ko gitu. hmm. ci boo ñu liggéey léegi loolu taxoon sax ren léegi moo woon mais bon nee nañ xaw a gëj ñëwaat def quelques combats vraiment. voilà boo maa ngi ci 17 combats. 17 combats ci laa bàyyee. ci nga bàyyee mais dafa mel rek pour bi lu mel ni léegi lu teg ci du lu yomb dafa am fooy jaar jàng ko mokkal ko am ci ay lijaasa doog ko mën a ubbi. gannaaw ba nga noppi ba pare lan moo la jox xalaat performance boo nekkee boobu ma jàpp ne waruma box bàyyi rek bàyyi ko parce que am na lu ma ci xam euh, ci laa dee foofu ma dem di seet yàlla gën a doole mun a gën a xam xam-xam yu bëri di am ay ndaw yu ma tàggat donc bu ma demee ba nekkatuñu sax nekkatuma ci ñu tàggat ay nit euh, pourquoi pas sax ay mémoire am na moom waaw yaakaar naa ne ci foofu la muy njaaree dugg ci li nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg waxtaan bi ndax bu wax fi nga jaar wax li nga bi am na feneen foo bokk am na loolu doon ci jële réew ginnaaw bi nga xamee ni jàng nit ko ba di ko donc mën nañu wax naan waxtaan bi xale yi nga xam ne ñoo ko tàggat ni leen exploité ni leen fédération du jëlee ni leen taal jëlee est-ce que am dëgg-dëgg diggante yan jafe-jafe nga ci faral di ci am ñaare. waaw jafe-jafe yu kii sax yu doy waar sax. parce que loolu fédération yi fi jaar avant yi bii nekk nii sax. yooyu xawoon na tane mais bii moom dafa ñëw daanaka dafa rey box bi am. parce que man mii di wax ak yow secrétaire général laa ci diggu Dakar. donc tey licence bu génn Dakar maa ko waroon signé cacheté ko. voilà donc loolu amul et puis man mii sama yëngu jëndal naa leen licence. ñu compétir te ba léegi licence yi génn. boo yi may gis si keneen ñuy bokk sax amuñu licence. mais lan moo waral nga ni ku amoon licence Sénégal ko war a am yow yaa ko war a signé fii ci Dakar ak Dakar kon dafa mel ni sa ñëw dafa toll lu mel. non non defu ba ko lu tax fédération dafa ñëw pour accaparer leen rek mu euh, dajale entraîneur yi di mhm. ay dig yu rëy. Mhm. bi bi moo nekkoon lu mu leen def loolu ñu mun ko def. Mhm. ci la ubbi kon nag déggee foofu kële bi ñu fay affilié. mais avant boobu am na benn système bu doon def bu doon def boo xam ne. moo gën a jaar yoon ban la doon exact. mooy affiliation bi kële bu mun a nekk Dakar da ngay ñëw gis ne Dakar. Mhm. fa ngay verser xaalis bi. Mhm. Euh, ñu euh, ñu kase te signé jël wàllu nit bi. Mhm. Euh, fédération bi ñu nekk wàllu mu tegal yi. kase te signé mu doog a doon. affiliation bu valable. Mhm. Euh, licence yi tamit noonu la daan demee. mais léegi demeetul noonu. demeetul noonu kii dafay ñëw. Mhm. Euh, dig gaa yi mu rëy ubbi loolu ubbi fële kontam te bii foofu gaa yi ñu versé fa affiliation yi ak euh, licence yi ak accaparé lépp. kon dafa mel ni yow li daan jaar say loxo. ak liggéey ba nga ci am lu ko foqat say loxo. dañ ko foqat doxalee ko ñoo xam ne ñoom noonu lañ ko bëgg a doxalee. mel ni kuy exploité yi nga xam ne ndaw yéegu ci biirum bi daw combat yi nga gis Magic Land booy yooyu amuñu licence. amuñu assurance. mais nan la booy ñàkk assurance ba pare tamit di def loolu. ñoom ñoom la rek am fédération bi moo ko def te ba pare ci gën a grave 2500 la leen ci jox combat box su bépp ndaw loo xam dafa def box su def combat. Ah, juróomi téeméer juróomi téeméer ngay am. mais bu njëkkoon avant boobu lan la doon moom bu njëkkoon. Ah, bu njëkkoon ba nga xam ne comité national bi moo fi nekkoon foofu sa fédération fédération bi mu amee boobu sax daanaka ne parce que daa nga compétir euh, ñu ñëw jox la dix mille les autorités ñëw augmenté am lu ci teg daan loolu ba tey moo tax ne nii te booba affiliation yi trois mille la woon. mais li ma jaaxal xale yi di baax bi di di baax suuf bi xoolee télé bii nga gis ku nekk. waaw ah ñuy xeexal Sénégal partout. daanaka mm-hmm. fay ba daanaka demeewul noonu. déedéet fayu leen sax. 2500 bu fekk moo ci jël tax. 2500 mooy benn combat. benn combat moom la ñu fay booy ba pare sponsor yaa ngi fay dem. mais ñu jaayee billet 10 e billet 15 000. ñu fay xale bi 2500. 2500 xale fa lay yem. waaw ah. mooy paasal ba koom. waaw ah. dem dellu. dem dellu ba pare li ci garaaw mooy euh, boxe dafa am série. Mm-hmm. série débutant débutant bi nga xam ne deux combats la def mun na boxe ak ki def cinq combats. Mm-hmm. mais au delà de cinq combats foofu yaa ngi

ay businessman lañu. li hmm. ñuy def nitu fédération. business lépp lu teg si wax dañu ko violé ñoom di dox di doxal di dem dañu dem sax mu am seen euh, benn élément bu euh, nekk ministère léeg ñu bëggee dara mooy déplacé wu ñëw ne ministre bee ba ci. non amu ci Youssou la directeur de sa amitié. te hmm. ñu ne ministre bi moom moo yónni fekk ministre bi yónni ko man ma demee ministère laa xam ne moom ministre bi ko yónni parce que nee nañ ma ministère bi yónni délégation la bi la yónni. délégation la yónni. tas bi lay doon tas bi lay doon mais yow tey bu ñu waxee tey xale yi nga jiite tey ñàkkul ne am na xale daan combat di am 2500 ci ñoom. waaw am na ci parce que jël naa ñeenti licence ren. Euh, trois trois yi ñoo kenn kii moo amul adversaire mais ñaar ñi taxaw hmm. leen ni nañu. kon laajte bu ñu wàccee compétition bi mais dama rek. waaw yaakaar naa ni xam naa ni euh, euh, waxtaan bi am na solo. parce que li si gën a am solo mooy ndaw ñi yëngu ci sport te bëgg ko ci ay discipline yu différentes ba biir Sénégal ndaw yi bëri ñu ko bëgg bàyyi lu mel parce que lu mel nii rek moom moo tax. parce que ndaw ñu jël yitteem ak léppam teg ko ci sport boxe ñu koy seetaan partout dans le monde ñu la xale bi 2500 lay am chaque combat wala chaque jour yaakaar naa loolu lu ñaaw la ci biir mais du ma fa yem ba léegi dafa mel ni yéen est-ce ci état joytu nañ ko parce que man mii wax ak yow bind naa ministère yóbbu ko bind naa aussi inspectrice régionale bi nga xam ne mooy suñu tutelle bi waa Ville Dakar waaw ñoom ñëpp bind naa mu ne nii xam naa ne moyen bi ci des bi gën a gaaw rek xam naa ñu ne média yi aussi day lëtt soo comme dañu am ah seen i élément fële ministère ko mm-hmm. nekk directeur mm-hmm. du stade amitié lu ñëw moo koy kon du yegg mais tey soo amoon euh, euh, euh, wax boo xam ne war nga ko war nga ko wax tey état war nga ko wax tey waa fédération ban kàddu lay doon. waaw di leen wax ni rek li ñu fi fekkoon nga xamante ne kickbox du Sénégal 1963 jamono yooyu ba léegi di doon doxee mooy ligue day am affiliation yi dafa jaar ak licence yi te it ñu def championnat ñu def ko championnat boo xam ne dafay am recensement. leen ci saal yi nga xam kii kan mooy débutant kan mooy espoir kan mooy ancien nga doog a démarrer champion mais fii rek dajale ay nit euh, noonu la ñu defee champion donc ñu boole technicien yi ci biir ñu xamal leen comme ñu xamul. ñu xamal waaw kon a ko déggandoo leer na mais tamit duñ dem mukk te waxtaan bi ana nan nga def ba taxawal lu ni mel ndax ku la fekk fii ak ndaw ñi xam ne commission yi ngay liggéeyee métti na ndax fii dina la jàpp. wala sa propre moyen nga fay taxawal ndax commune wala maire bi jàppale wala déet. non pour le moment nag amaguñu benn jàppale euh, man maa ngi jaay comme damay def commerce yi. débrouiller avec les moyens du bord rek pour installer la hauteur di jënd benn gant ñaari gant pour kii casque bi pour dajale ak moyens yooyu yëpp moom la ñu koy defee. booy itam ay jàmbaar la ñu léeg-léeg dañuy jékki-jékki rek ne ma kër ci il faut ñu cotiser il faut ñu def nii daal di jëlee seen ci dugal ci. di ko defee quoi mais tey ku bëggoon xale yi eh, eh, eh, am donc nan ngay def ba xale yi ba mën a génn tamit mën a mën leen gis ko en fait. waaw booy yi moom ah, booy ci entraîné boo xam ne fi mu ne nii mën nga bokk si challenge débutant. Hmm. bu ci wax bi chaque année da ngay hmm. booy boobu ma ci xool xam ne mën na dem rek dama koy yóbbu ci kaw nag. Euh, yëf yi tegu ci yoon. tegu ci yoon tegu ci yoon moom dañuy entraîné rek di xaar man mosoo ci ci côté parents yi ak daanaka ci xale yi nga xam ne waxambaan ko naka la yor xale tamit ngi wax na arrêté et tout genre problème mosoo ko jànkuwante. waaw moom genre problème yooyu moom amaguma ko parce booy ma fi yor yëpp vraiment ñun ñëpp a yor boobu nga gis nii yaa ngi ñu àndal yooyu ma def ko ak sama man waaw yaakaar naa ne kàddu bi am na solo xam naa waxtu bi rek moom ñu tënk ndax lépp moom xaj ci benn jotaay mais comme fii daanaka suñu bërëb la waxtu bu ñu soobee dañ si ba xam ana ñoom nan la ñuy dundee tey bu ñu doon laaj ci bile lay émission ban kàddu lay doon. waaw xanaa di leen jaajëfal yéen ñi def naa sama ñoom fii te seen ci dara donc dafa rek a euh, leen tax a jóg di ñaanal di leen yéene jàmm. ni nag euh, ñi ñuy seetaan ñëpp ñu xam ne li ñu wax noonu la demee fédération bi fi nekk moom ay businessman la ñu gërëm ñu mun si xaalis te mun nañu gaañ booy yi dem parce que bu booy yi jël bu daanu comme ça ancien boo xam ne dem na plusieurs fois champion d'Afrique mm-hmm. euh, kooku dafay am répercussion quoi moo tax daal métti ko ñu def naa ko yow defar kon yaakaar naa ne euh, mbokk yi ko dëgg loolu moom mooy découverte bi ñoon def tey Kër Massar di sant wax boo xamee ni daanaka ku fi ñëw xam ne ay jàmbaar dëgg ñoom ñoo ko yor xam ne ay góor dëgg ñoo fi ndax bërëb bu ni mel ko xool xam ne joxe ko fi am daanaka mooy am mais boo xale xoolee xale yi ni ñuy defee la ñu bëgg nga xam ne xale yi am nañu pas-pas réew mi nag jot nañ jàppale ndaw yi ni mel ndax ku xam Kër Massar xam ne réew mi dëgg la boo xamee ni daanaka dafa bari loolu coow dafa bari lool ay jafe-jafe ci wàllu nekkin kon bu xale amee métier ba di ko def kon am lañ see mën a teg loxo bu baax a baax mu ne kon loo xam ni eh, Le TV ñëw na fii ci Kër Massar indi leen ko yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax jërë ngeen jëf.